ay tudd Oumar Diop di jàngale école euh, élémentaire de Ngoumsane ici à Thiès ci Thiès actuellement maa ngi am euh, ñeent fukki at ak ñaar la am maa ngi judd 1974 waa ren la waaw série L prime laa doon euh, laa doon def L prime 1 waaw L prime 1 bon jaar-jaar bi nag xaw na gudd tuuti parce que bi ma waree def première. dama bëggoon football nag dama bëggoon football bon yàlla mooy na ma xel tuuti aussi njàng mi. ma ni damay dem Côte d'Ivoire parce que sam sam sam benn magu yaay bu fa dëkk bi ma demee ma wax leen dama bëgg daal ku ma jàppale ma def sport étude léegi ñoom ñu ni ma jàng daal Sénégal la gën a yombee léegi dañ lay proposer soit euh, bu la neexee nga toog jàng métier boo bëggul aussi ñu paasalaat la nga nga dellu Sénégal. bon ma xam ni tardé naa lu mat ñetti ba ñeenti weer mënu ma woon dellu Sénégal ma toog foofu jàng métier léegi jàng naa métier lu mat euh, at bi ma commencé mokkal xawee mokkal tuuti ma commencé di ma fay ma commencé di liggéey ma toog fa lu mat fukki at après si laa ñibbisi Sénégal bi may ñibbisee Sénégal en 2006 2007 euh, ñu waxoon ma benn concours pour jàngale muy bu EFI bi. ma def ko 2008 te après ma def formation bi voilà depuis 2008 daal maa ngi maa ngi si njàngale mi maa ngi jàngale aha non mosuma woon def bac mais déposé woon naa 2009 pour def ko comme dama ne woon nag fa xaw a sori jour bi ñuy def bac yëguma ko woon kenn informé wu moom mujj ma dem passé épreuve yi après si laa dem retirer sama relevé on m'a donné zéro partout naturellement <laughs> après cette daal man ni naa ko. jéngu daal après ma def ko yàlla may ñu si succès waaw muy mbégte bu mag waaye série L prime laa doon def mhm, mi dofis mam moyenne onze virgule zéro huit ak fukki poñ yiñ ma yiñ ma yiñ ma dindil si éducation physique bi ma deful woon parce que yëgu ma woon jour bi yu demee noonu mhm. bon li ma xalaat ni mooy euh, xool yan concours rek la parce que bac lay ubbi la bunt yu bari xool ak bac bi yan bunt laa mën a aw pour continuer sama sama njàng topp daal sama destin waaw ah, parce que xam naa lii destin la yàlla moom moo ko namm si man donc du fii laa koy yemale bu sawee suñu borom sawee suñu borom allez merci